nuy naa ñëpp fi tàmm léegi yéen ci yéenekaay yi ñi nga xamante ni ñooy wër di wax ni mbas mi feebar la yoo loolu du dëgg ce n'est pas vrai ka ko yëkkati yooyu la kàddu di wéy turu xalif général des Tidiane njiital kullukum Tidiane ni covid 19 bi nuy wax du feebar balaa la ba mbaama kumba la balaa la bu wàcc sunu kaw te balaa nag ak musiba mbaama kumba saa su wàccee ci sunu kaw lakk ko fiy jëlee moo di amu yàlla gu mat sëkk sëkk sëkk delluwaat ca yàlla la ko fiy jëlee di saraxe jëf-jëf ju baax Serigne Babacar général des Tidiane nuy nguur gi ñoom ñi jiite réew mi nañu wax askan wi li nga xamante ni moom moo xew ñu xamal askan bi ni leen mas mii alaa la boo xamante ni kenn mënu koo faj fii jëlee mooy dellu ca yàlla sàkk sarax tub tub gu tey bare bari ñu nekk noonu ngir bañ mbas mi law ngir bañ mbas mi kor ñi nga xamante ne ñu ngi ci diwaanu askanu sunu gaal tëj mboole seen luy baar mboole seen luy discothèque ña nga xamante ne ñoo na ca baar ya sunu gaal 24 ni ma ni aristocrate gomis moom aristocrate gomis yëkkati na ay kàddu ca ay rajo naan man li ma yëm te de ñun de tëj nañ ñu lu tolloog ñetti weer tëj suñuy baar te waxal nañu dina am lu ñu jox ba nekk ni jotagun ca ngir benn fan la ba muy doon ñaari fan bay doon ñetti weer jël nañu suñuy licence fi mu toll nii damaa obligé tëj te moo di am ndaw yoo xamante ni dañ doon liggéey fii di daan seen doole ma leen di fay dootu ma leen mën a fay du ma ne du ma leen fay nag waaye na ma leen di faye moo di cinquante pour cent waaye du doon cent pour cent nga ni ma salaire ba duunul dëgg mu gaañ woon dañu koo gaañ kani woon dañu koo violé kani woon dañu koo sonal woon doon koo taf ci miir kani woon doonoo yegg ca kawam ku ni viol ni ay xoosu xoosu wala gaañu-gaañu wala blessure infection k yu ni mel ba mu set ndaw si nga xamante ni moo noon agent croix rouge bi daa yegg ci kawam Sunugal 24 ni ma mbir ma la xew la nga xamante ne moo xew réellement di si kenn yeggul ci kawam ci ay jambam maanaam cay poojam gisuñu fa benn gaañu-gaañu ci biir gisuñu fa dara ah nga ni te li ci yéeme te doy ci waar moo di ndaw si est bi nga xamante ni moom la koy defloo ngir xool ndax yegg nañ ci kawam boromam déet ndaw sa nangu koo def nga ni moo ah mbir mi mujj na doy waar cooy ñu ameel ak waa ji bu dee amul aka bari aka bari bari na lool lool lool lool ka nga xamante ni tamit mooy laaj la nga xamante ni moom lañu ko ameel te mu bari lool lool lool kooka coon sekk lay wuyoo moom coon sekk topp waa ji di Aline Badara Diagne mi nga xamante ni neenu moom moom penc mi waaw moom penc mi coon ni réflexion maanaam defar ak defaraat maanaam méngoog jamono moom coon sekk di topp waa naan ko millions de francs CFA wu jaay ñaari téeméeri millions ëpp na fi mu moom coon kenn toppatu ko mooy wëlbati ko du toppaate ay waay moom la mu bëgg du leen lu dul ñu jox ko deux cent millions yamu ca jot a def waaw dawaat duggaat ci li nga xamante ni moo di mbas mi waaw Moustapha Diakhaté moom ci jëmi boppam yëkkati kàddu wax ca mbas ma la mu ca wax moo di màggal bu amee ak gàmmu ka communautaire yi dina yokk lool lool lool lool lool lool hmm. Hmm, baax na ñu dem. loo ci am moo di mbas mi fi mu toll nii ci jëmmi boppam faat na. li ma koy waxee bu doonub dëkk la ca ay sëgëm suul na ca lu tolloog ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett. moom mbas mi li mu jot a toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ca dëkk boobee di dëkkub coronavirus ñaa fa des. ba nag ni puusunu paasunu yàqu sunu demunu fenn. ña wéragul toll ci ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar. jot a dugg ca dëkk boobee ba dëkk ba day dëkk ba nekk ni moom dëkk coronavirus toll ci fukki junni ak benn ak ñetti téeméer ak juróom fukk ay loolu bari na di nga xamante ñoo jéem a fupp jéem a génn ca dëkk ba maanaam ñëwér ñooña toll ci juróom-ñaari junneeg ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ah waaye man la ma yéem te jaaxal ma moo di 49 kay graaf yi nga xamante ni ñu ngi ni gas ni gàjj ni gajar ci askan sunu gaal ka transmission communautaire yi nag doy na waar 36 la ñu mujjee gis déew ca ëppale di Kaolack ka ca tegu di Kédougou Kaolack am 6 Kédougou am 5 Mbour am ñëpp ku ci nekk am nga ñeent Ziguinchor am résidence Parcelles Assainies Richard Toll ñoom ñëpp ku ci nekk am nga ñaar cëy Diourbel Guédiawaye HLM 6 Keur Massar Kolda Liberté 5 Mbao ñoom ñëpp ku ci ne am nga benn cas transmission communautaire du tàggoo la la nga xamante ni moo di jee juree ju màgg ju ngànna ja xew ca Parcelles Assainies benn maçon ci jëmmi boppam naaw ba mu ndekkee ba noppi commencé liggéeyam konub liggéeyam moo di jéem a la nga xamante ni moo di dal far dal ba wàcc ca kawam oho del ba wàccee ca kawam am na ñu ko doon jéem a dimbali sax ngir yëkkati ko waaye ñu ca lu bari sapeur pompier le soldats du feu moo mujj ñëw def liggéeyam ba génne fekk na yoo ndekete la mu génne ka mu génne àndut ba bakkenam ndeysaan o oh, génnewul nit o oh. ëy metti na de metti na lool lool lool lii kay na waar ëpp na tool ah, gone yi yi gone yi ab dal bu màggatee bala nga caa dugg da koy xool bu baax a baax a baax moo gën a wóor la say laatiir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba subaak jàmm joaken coof maa xamul jeunes yi c'est parent wala jeunes yi ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo conscient wul wala seen parents yi ñoo conscient wul xale na la lay tàggoo sol yére boo xamante ni dalay leer ne kii fa mu jëm plage la jëm nga bàyyi ko mu dem à l'heure actuelle ci jamono ji ñu toll nii xale tàggu la nga bàyyi ko mu war a mën a génn dem dem fan fan la jëm vers vers les plages ngir lan ay sangook ay ay piscine dem ci dem ci ay piscine nag yu kenn xamul yow sa doom war na la mën a tàggu si heure bi ñu nekk nii a l'heure actuelle nii nga xamante ni coronavirus bi dafa plafonné ici au Sénégal waaw man foofu rek laa noonu rek laa ko mën a jàppee c'est quelque chose boo xamante ni lu plafonné la ah jikko yi ñoom maam bàyyiwul ñu war ko jël utiliser jikko yooyu noonu toog ci ba mbas mi lu ñu daal loolu sa doom def ko yow defoo ko waxoo ko sa doom mu def ko ba pare mu lay tàggu am na si de y a des parents yoo xamante ni sax c'est à eux même ñoom ñooy régler li nga xamante ni moom mooy le transport de leurs enfants buñ bëggee dem si yenn plage yi buñ bëggee dem si yenn sortie genre affaire du ni yu ni xale yi yenn association yi di dajaloo di football ak yeneen i association dëkk dëkk yéeg luye luye njaga njaay dem football yi ci beneen dëkk pour quelle raison affaire bi bu tasee nit ñi ñoo ko tas le coronavirus waxoon naa leen ko ni ni leen le coronavirus bougé wul ça ne bouge pas le coronavirus moom fi mu toog la toog ku jóg dem fekk ko nag yaa ko fekki ku jóg dem ci moom yaa dem ci moom mais le corona il est toujours là fi nga xamante ni foofu la nekkoon mais ku jóg dem wuti ko yaa ko wuti yaa indi te imagineel nga dem ci plage wala nga dem quelque euh, ci benn milieu boo xamante ni c'est un lieu public ah nga nga nga atteindre fa am fa li nga xam ne moo di corona bi imaginer ñaata nit nga war a lor yow sa jëmm les les cent et quelques cas transmission communautaire yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi di lëmbi réew mi di dox di dem kenn laa xam ku ne la ko kan lañ ko war a wàllaat parce que ñoom ñu ko am quatre cent et quelques yooyu noonu ka am xamuñu ki leen ko wàll kenn xamul kan moo leen ko wàll ce qui veut que ni kon ñi leen ko wàll ñi ngi ci réew mi bu fekkee ñenn ñi sax jotuñu leen testé gis ñi ñi ngi kër docteur mais xaaj bi yëpp mën naa wax ni ñu ngi wàcc réew mi continue di dox te ñoom cas transmission communautaire yi est ce que tamit wàlluñ ko yeneen i nit imaginez imaginez l'heure est grave waaw loolu ñu a l'heure est grave moom weesu naan sax ci heure est grave instant bi mom comme lan lan war a wax waaye waruñoo wax rek heure l'heure est yam ci parce que c'est c'est quelque chose boo xamante ni lu doy waar la comme li ma doon wax sànq imagine nga dem si benn plage wala nga dem fenn jël fa corona bi ah, retour yow gars yi bàyyeeku woon nañ gars yu bari bàyyeeku woon nañ masque yi takkatuñ ko imagine lool nga waaxu ñëw wuuti wax jëm sa koñ. en cours de route maire gerte caaf bi ngay romb maire nuyu ko salaamaaleykum jaay ma gerte tàppanteeg moom nuyu ko jox ko loxo ray nga ko ba tey ngay dox di dem dajeeg sa benn copain wala sa benn copine wala sa benn mag wala sa benn rak grand nuyu ko cher ko baal ma ak baal naa la àq nangam nangam imagine loolu moom itam lor nga ko au fil du temps ngay continuer di dem di persévérer di dem di dem ba ëgg si sa gàlle aussi sa gàlle aussi y des individus là individu yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk aussi tamit il suffit rien d'autre que à ce que nga jox leen sa loxo ñoom itam loor nga leen kon ce qui veut dire que ni l'heure est grave l'heure est encore beaucoup plus grave parce que tey jii yow si li nga xamante ne moom mooy sa kër. donc ce qui veut dire que ni l'heure moom instant bi au moment où nous sommes mën nañu l'heure li nga xam ne moo di grave parce que bon euh, tey jii kooku noonu bu duggee këram jóge ci fu ko am mu jël ko. xam nga ku ko wàll ka ko wàll moom wàll na ko mën na ko wàllaat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ca plage ba mën na ko wàllaat ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen ca baar ba mën na ko wàllaat ñeneen ak ñeneen ca restaurant ba moo xam bon on sait xamuñu fa ñuy footballé ca terrain ba xamuñu bon c'est ça ah lii de rencontre yi daf ñoo bari ici au Sénégal te te te te te mbas mi euh, foogoo naa ne waroon naa tax boy yu baree bari wala jeunes yu baree baree baree bari toog baña a demati fenn a ah, mais mais mais boy yi doxewul noonu ñoom daal bon euh, c'est du je m'en foutisme moom moom la ñuy doxee. imagine kooku ñëw wàllu ko benn paa ba nga xamante ni ma nga ca këram màgget gu am quatre-vingts ans jëm kaw. ñëw maam booy daw waaxu songu maam nuyu ko ah wala am maam lum la doon defarloo nga defaral ko ko virus bi takk ci loolu mu jàpp ko ci loxo yi maam dem lekk virus ba dugg ko yow rayoo sa maam te te mag ñi nga xamante ni ñoom ñooy mag ñi cest diir ñi nga xamante ni ñoom ñoo am soixante dix ans jëm kaw bon ba soixante ans sax jëm kaw ñooñu bu leen affaire bi jàppee bu fekkente ni duñ duñu du daaw ñu faral di def sport wala sax même buñ ko daan def sax ah euh, affaire bi ñoom duñ ko duñ ko duñ ko mënal lu bari imaginer loolu imaginer loolu léegi au au retour léegi yow rey nga sa loor nga sa maam. parce que moom bu ko dalee moom fat fat moom amul yow mi ma nga xamante jeune bi sax na ko dal tey du tik au tak mu daal di bon am na jeunes yoo xamante ni leer na ma ni corona nañ ba wér te xamuñu ko waaw imaginel mu dal sa imaginel kon gaa ñi bon ñu moytuwaat bu baax a baax a baax a baax a baax te xam ni le corona mi ngi ci dëkk bi te bari na fi te ça tue aussi encore une fois mi ngi ci bu dëkk bi bari na fi te ça tue fois ma waxaat ko mi ngi ci dëkk bi bari na fi te day rey mag ñi masque yi gars nañ ko tàkk ku ci ku ci ku ci war a tàkk masque masque bu deux cent francs ñu alamaan la ci dix mille wala cinq mille wala trois mille yaa ko teg sa bopp. man dama mënul comprendre tamit aussi takk masque ba pare wàcc ko sab sikkim kon loo ciy takk loo ciy takk takk ko fa mu waree seen mbokk seen xarit Fall Damel yéen jox dig daje ba suba ak jàmm mu jàggeen coof